am yeneen barab yu ko sëriñ bi yabal am ci ci kër Makala nu daje fa sax yàlla dogal nu daje fa mu wax ma ni ma soo demee kàddu gi nga xam ne sëriñ bi moo la yabal sëriñ am na man nag man lañ joxoon cëru ma di fa jël kàddu waaye soo demee la ma fa daan wax na nga ko kon sëriñ Ahma ñoo ngi jël kàddu gi ci turu Cheikh Sidi Moukhtar waaye nag ci turu sëriñ Baara Mutile ndax moo daan jël kàddu gi ak mu jot bokk yi sax xam nañ ko. kon ñuy nuyu sëriñ Ahmadou ak mboolem njabootu sëriñ Modou xarit yépp góor ak jigéen mag ak ndaw bu ñu ko limee dañu juum ñu jël nuyoo bi teg ko ci loxo sëriñ Ahmad mi xam ne mooy kilifa kër gi ngir mu jot lil ko sëriñ bi njaboot bi yépp nuyoo sëriñ bi ak ay cantam ak ay ñaanam ci bis bu tedd bii ñuy defal sëriñ euh, Modou Khary nga xam ne ñëpp xam ne digganteem ak Serigne Touba confiance ba nga xam ne Serigne Touba joxoon na ko ko lam daan déewoo ak moom te néew loolu ñu ngi koy déewal ñi xam ñi ñi ñi ñi ñi ñi fekkee ñëpp xam nañ ko ñi fekke wutit ña fekke woon ñi ci ëpp wax nañ leen ko te loolee itam mooy wéy ba nëgën ndax ñoom ñii fi nekk ba léegi tamit ku fi nekk ku fi toogal Serigne Touba dina déey yow dina wax ak yow ndax ñoom lu ñu fekkoon Serigne Touba di ko def ña fi ña ña ña wuutu woon Serigne Touba du ko def ba mu yegsi ci ñoom continuité la ñu def loolu dañ koy continuer kon sëriñ Amadou sëriñ baa ngi lay nuyu di la siyaar di la ñaanal tey sàkku ñaan tamit ci bu tedd bii ngeen di defal seen waajur yi di sàkku nuyoo bi ak cant yi ak ñaan yi nga jot li ko kër gi yëpp euh, bàyyiwul kenn di nuyu bu baax itam euh, Serigne Fallou. moom sëriñ Mbàkke soxna loo di sama doom mën naa koo wax ndax mën naa taxaw wax ni sëriñ Mbàkke soxna loo defal na ma loo nga xam ne bu ko neexee ni kenn defalu ko te te te ñépp tekki seen bët di ko gis nga xam ne nekkul lu ñuy éventé nekkul leneen nga xam ne ñoom jëmmi seen Mbàkke laay xool ci ñoom ba fii ma toog bu ma leen gisee ak bu ma leen gisut ñu leen bëgg laa ñu leen sopp laa ñu leen di ñaaral laa itam ma di ko yóbbante nuyoo Serigne mustafa mi nga xam ne mooy kilifaam di nuyu sama ñaari xat yi ci sama wet di Abdou Ñaan mi di Ram Sarr may nuyu bu baax itam préfet wax jëm wax fii du waxu administration xëy na administration sax boor yépp lay toogee waaye wax jëm wax fii tey daanaka moom mënoon na jël kàddu sëriñ bi ndax lim fi wax kenn mënut a wax loo xam ne oroom na lool di nit ku baax nit ku yaru nit ku dal ndax bi mu fi nekkee ba léegi conséquence bu ne romb na fi waaye du tere dana ci ànd akub dal ànd akub teey ànd akub taalibe ba lépp sedd guy noonu sëriñ bi nag ku ko bëgg jàppale noonu nga ko jàppale kon ñoo ngi lay nuyu di la jot li nuyu sëriñ bi di nuyu bu baax itam sa sëriñ Baara di nuyu bu baax itam Arabi wax ji warafet a ji nga xam ne wax na ko fi moom bu ko sooboon tey bi mu ñëwee bu waxoon ni mooy wax ci kàddu sëriñ bi kon yéen da ngeen ko ne waxal man mii danaa ko ne waxal ndax am na ci droit te man na ko itam ndax nit boo xasee génnee kañaan ci moom génn rëy ci moom amatul kuñ mën a tudd ku la gën ndax sëñ sëñ euh, sëñ jili longoor wax na ko léegi yonente bi yàlla tëgg ko ci ab juddu tëgg ko ci xam-xam tëgg ko ci mbubb mu rafet tëgg ko ci alal tëgg ko ci ab taar ci jikko la ko tagg kon nag jikko mooy li nga xam ne moo gën a am solo ci nit arab yi dafa naa jikkoom ku ne mën naa jaxasoo yow ndax lu baax li nga xam ne mi ngi koy wax ci Serigne Touba te kàddu yi mu ko dëggale léegi mooy waxuma pour far li may wax lu ma wax damay wax fañ ko bind loolu amul dara lu gën a kon loolu kenn ku nekk xam ne ne yàlla moo tax muy wax xolam bu set moo tax muy wax ndax euh, nit la koo xam ne man xam naa ko bu baax ndax mën naa wax ni li ci kilifa diine yi ñu ci bari am naa ak jaxasoo ñoom. te xëy na sa sama xel neexul lool waaye lu mu neew néew dina am loo xam ne dinaa ko jàpp ci nit kon ñu di nuyu bu baax du ko jot li nuyu sëriñ bi di ko jot li siyaareem ko jot li ñaanam di ko jot ay cantam ci gàttal daal mbooloo mi fi toog yépp la gënal sëriñ bi mooy kenn ku nekk ñu tudd sa tur nuyu la siyaara la ndax foofu la nekk ci xoli nit ñi ndax xam nañ nit ñi naka la ñuy jàppee sëriñ bi sëriñ bi xam nañoo naka la jàppe nit ñi ndax bi mu fi ñëwee nekk sëriñ tubaa ak léegi cofeel gi nga xam ne nit ñi am nañ ko ci moom guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñu ngi ko koy won ci jëf ci wax ci dox ci lépp moom itam cofeel gi nga xam ne am na ko ci nit ñi guddeeg bëccëg suba ak ngoon mi ngi koy wane ndax li mu fas yéene ànd ak taalibe yi Serigne Touba yi jëfal Serigne Touba loo xam ne ku ca yam da xam ne jii jëf Serigne tubaa moo ko yàlla te loolu defe naa ku ko def jëf nga am na loo xam ne tegees na ci suñu bët am na ci loo xam ne digg itam euh, du ca doy gis gi nag mooy la nga xam ne moo ca doy te mu ngi yoon kon ñuy sàkku ci béréb bu ñaan bii ñu fi teew ñu ñaanal Cheikh Sidi Moukhtar yàlla yàggal ko fi yàlla may ko wér ba li mu bëgg a liggéeyee Sëriñ Touba lépp nu àndandoo ak moom liggéeyal ko Sëriñ Touba di nuyu xarit yi soppe yi wëllëre yi di nuyu bokki taalibe yi fi teew yépp di jëkk nag a jégglu ci Sëriñ Jili mi nga xam ne ñëwoon na fa ànd akub délégation ñu wax si ma conférence bi nga xam ne stade dañu koy def mu wax leen ni fas naa yéene teew ca waaye man li eh, maam yi Sëriñ Fallu doon wax rek ne loo wax def ko yàlla moo ko mën waaye lu ma wax nar naa ko waaye man mii itam lépp lu ma wax nar naa ko waaye loo wax def ko yàlla moo ko mën bañ ñëwee wax ma ko mu xamal leen danaa ca teew waaye biig naga ni maa nga Touba Mbella toog te bi may dem Touba Mbella jaar naa ci juróom yu mel nii wala ñeent yu mel nii mu juróomeel ko ma soo a dem Touba Mbella sama kër trois heures du matin laa fa àgg loolu mooy ngant li teew ma teew fii waaye façon naa yéene teew fi ndax lu lu ma lu lu nekk ci sama xol la woon ndax bokk yooyu la ñu def ñu bari dinañu taxawal ay bés waaye lañu def ci man dafa rëy fi man ndax euh, say bokk waaxu ñëw ba fekk la sa kër li sunu maam day danoo bëgg taxawal ko nangam nàngam nangam te maam ëpp ëppalewuñ la ca cër bañ ca am nga am ko ca ñu ñu war la ne leen li bokk nga ci loolu sama xol set doon na ci ba teew fi jëf ci wax ci moom rek moo ma doyoon waaye nag jaam ak dogalam jaam ak ak ak ak ak jëfam yàlla ak dogalam waaye kon loolu tamit maa ngi leen koy jégalu bu baax di jégalu itam euh, yéex gi nga xam ni yéex naa ko ñëw fii tey ba tey rek. loolu ma gàllankooroon démb moom gàllankoor te jiitam jaar ci événement yu mel nii yoo xam ne yu takku la ba tax ñu guddee ci fii waaye bis bii bis la boo xam ne sax Sidi Muxtaar fa sore sore la ko teg fu rëy rëy la ko teg ci moom ngir fànn yu bari teg na ko fa ngir jëmmi seen Tuubaa yi ak sëñ Moodu fa ñu nekkoon ndax ñoom bari na lool loo xam ne man ma xam ko ci sëñ Moodu Seex Sidi Muxtaar ci boppam moo ko wax may dégg kon am na fu mu ko teg foo xam ne lu jotewul dara ak njaboot gi waaye ci biir njaboot gi itam seenu nekkin seenu doxin seen jëf seen wax surtout seen ama mii nga xam ne dafa nekk ci boppu njaboot gi dox nam waxam jëfam yaram tegginam nangoo liggéeyam nangoo jaamu yàlla am loolu lépp bokk na ci li nga xam ne itam sëriñ bi tax na mu am ak xër ci bis bii tey nga xam ne laaj na ko ay yoon yoon bis bi soog a yegsi di xamal sëñ Ahmad ne ko kaddu Cheikh Sidi Mokhtar jëfu Cheikh Sidi Mokhtar ci jataay bi mooy jëfu sëñ Ahmadou Mokhtar ca ko Xudoos ndax ñoom du ñu ñaari nit kenn nit lañu ndax boo nee sëñ Modou Moustapha ne soxna Aminta boo nee sëñ Baara ne soxna Aminta kon boo nee sëñ Modou Mokhtar ni guy mbind ne Daaru Xudoos loola wéyal nañ ko ba ku jiitu ci quartier bii yaay kilifa quartier bi ku mag ca quartier bi yaay kilifa quartier bii kon ñoom kenn ku nekk xam na ni ëtt yooyu benn la kon ahmadu ñoo ngi lay jottali nuyoo sëñ ahmadul muxtaar moom itam ni ñu ko ni ñu ko defee ci nuyoo Cheikh Sidi Muxtaar ca guy mbind ñoo ngi lay jottalee nuyoo sëñ ahmadul muxtaar ca Daaru Xuddoos ndax benn nuyoo la sëñ Fallou bi mu waxee ca bu bu bu dul woon sax politique bi lu may daa waxoon ci sëñ Falloum sëñ Mbacke Sow Ndiob kon man sax du jël kàddu ndax genn kàddu googu doyoon na waaye nag sens bi mu waxee bokkut ak euh, bi ñoo ngi lay nuyu bu baax di jot li nuyu sëriñ bi di la jot li cantam di la jot li siyaaram di la jot ay ñaanam sëñ Sidi Muxtaar dafay faral di wax ni jamono yi nga xamee ne dafa doon xalifa moom du Lamine. Euh, dénkuñu fédération yi ne Europe yëpp bu masaan dajalee ba dikk toog ci kanamam day boobu nekkagul Serigne Touba sëñ Baar la waaye day wax ni lii ngeen dajale de li muy bari bari ngeen ànd doon benn seen xol yi ànd ngeen di jëfandoo di jàppandoo di yëkkatandoo ni leen ko alxuraan digalee Serigne Touba diglee ko noonu ma diglee ko noonu moo ma gënal lii ngeen may jox donte ay milliards la itam su ngeen melee noonu nag mu ànd ak milliards li ngeen may jox téye gi bu boobaa lay tàll ci man. ba mu koy wax yàgg na kon bépp kër boo xam ne ay ay ay kilifa dafa nekkoon di fa dund ànd ak Serigne Touba di dund ak moom ba yàlla dogal mu dëddu ñu dafa bàyyi ay nit Serigne Modou Moustapha tàmbale woon koo xam ne danga nga jóge mu xool ka jiitu mag ca mu teg ko ca kanamu mbooloo ma kooko itam du bëgg dara lu mbooloo mu bëgg mu bàyyi kook moom mu bàyyi kook ñoom waaye mbooloo mi itam lu koo kooko soxla ñu jóg taxaw ci doxeen woowee ñu di ko dox ba nëgëni du fi jóg ba mukk képp koo xam ne da ngaa bëgg ñu yilif la da ngaa bëgg yilif nangu ñu xam ne yilifuñ la tey boo bëggee yàlla sunu borom sax moo ko xam ne da ngaa ay nit ñu aw ci sa bu ëllëgee. buñ la yilifee da ngay nangoo ñu yilif la te itam mag ñi lañ fi tëroon teg ko fi ñaan ko jëf ko loolu du échappé du échappé bu mukk sëriñ Modou li nga xam ne sëriñ tubaab mu ko sampoon mu ko sampoon fii la nga xam ne moom la ko defal la nga xam ne moom la ko jëfal la nga xam ne moom la ko waxal loolee du naax saay bu mukk day jëm kanam waaye du dellu gannaaw kon àndandoo nekk benn mooy li gënal yàlla suñu borom ndax moom la digle moom la digal jullit moom mooy li nga xam ne moo gënal Serigne Touba waaye mooy li nga xam ne moo gënal Cheikh Sidi Moukhtar amul dara loo xam ne jar na fi xëccoo loo fii xëccoo rek yow andi woo ko fi am na ko ko moomoon bàyyi la ko fi ba tax nga di ko xëccoo te daa dem ba ko fi loo fii xëccoo am na koo xam ne moo ko moomoon dem ba ko fi nga di ko xëccoo xanaa yow da ngaa jàpp ne doo fi jóg adduna li ci gën a jafe tabe mais naa tabe ci lu de waaye tabe ci daraja lu jafe la te tabe ci daraja mooy ñu yilif la nga nangu ñu yilif la baat du doon ñaar du doon ñett du doon ñeent benn lay doon te mag ñi wane woon nañ fa mi jaar ak na mi demee ak ka koy yor ak nañu doxee moom kon nag sëriñ baa ngi leen di sant bu baax seen àndandoo bii nga xam ni fekk nañ ko fii yéen ñoo ñuy toog nga xam ne soo leen di ñëw ci sëriñ bi noonu ngeen di àndandoo buñ leen fekkee fii it noonu ngeen di àndandoo waa sayid naa nag illaa bi ma alim naa noonu li ñu gis rek fekke ko loolu la ñu seere kon daal wax ji mu gudd mu gàtt sëriñ ama sëriñ baa ngi lay jottali cantam di la jottali siyaareem di la jottali ay ñaanam tey sàkku tam ngeen ñaanal ko yàlla yeggale liggéey bi nga xam ne tàmbali na ko sëriñ Touba. yàlla may ko wér yàlla may ko kàttan itam leneen li ci des mooy yi nga xam ni bërëb bii da koo war a am te ak mu jot ñu tudd ko ren moom tudd leen ko man maa ko tudd te jot naa ay jéego jot na ci am yoo xam ne du kenn du génn kilifa rek moo ci nekk di dox dox sëñ Cheikh Bara Mati lay la ko ci war lépp mu ngi koy dox mu ngi koy wax mi ngi koy jëf yable na fi te ñam fi yabaloon ñu ñëw itam mu nga continuer di dox ak ñoom nga xam ni yéen dana lijjantiku te du ngeen jóge fi ngeen toog insha allah leneen loo xam ne da war a topp itam mu daw yoon mooy lu mu mën a doon na leen wóor ni daal bërëb bii sëriñ bi xàmmewu ko guy mbind xàmmewu ko daaru xuddos xàmmewu ko xayra xàmmewu ko gede xàmmewu ko daaru daaru minam ndax lépp béréb bi sëñ tubaa la ñi fi ne sëñ tubaa leen fi teg sëñ tubaa lañ fi toogal buñ juree jox ko sëñ tubaa doon sëñ tubaa ba noppi buñ juree jox ko buñ liggéeyee jox ko loolu nag kenn mënu koo jéggi kon sëriñ bi na xam ne béréb bi bërëb bu sëriñ bi jàpp la bërëb bu sëriñ bi fonk la itam xanaa li ci des rek liñ fi war a digle yow yaa koy digle waane nag bu ñu waxee ci kàddu sëriñ bi mbooloo jullit mu toll nii war nañ leen dënk jaamu yàlla war nañ leen dénk liggéey war nañ leen a dénk boole seen bopp doon benn comme ni ñu ko doon waxee léegi war nañ leen a dénk itam soppi jikko yi te tàggat ko ndax soppi jikko yi jikko wax naa ko léegi yonente bi ci jikko la ko yàlla suñu boroom tagg kon ñun ñi nga xam dañoo nekk ci gannaaw Serigne Touba war nañoo xoolaat sumu bopp bu baax te soppi suñu ay jikko ndax jamono ji njàmbat li bari na yàkkamte bi bari na ëpplente bi bari na te dama koy faral di wax boo amoon junniy kër genn kër nga ci mën a fanaan genn kër googee benn néeg nga ci mën a fanaan benn néeg boobee benn lal nga ci mën a fanaan benn lal boobee fa tolloog sa bàmmeel nga ci mën a fanaan sër ba ngay sàngoo itam moog moog lañ lay juróom-ñaar du mag juróom-ñaari mètre per calier lañ lay laxas te jamono ji loo xëccoo xëccoo loo daw daw boo faatoo bu dee ci guddi gi nga faatu duñ la bàyyi sax nga fanaan ci salal ba nga daan fanaan dañ la yóbbu ca garage ba wala ñu gaaw yóbbu la ci armée lay ngir nga gaaw génn kër gi balaa am ñett fan ña ngay xeex ak xuloo ca la nga xam ne moo nga fa bàyyi woon ña nga xam ni yëroo leen woon wala jàngaloo leen wala jubuñu ñuy bàkkaaru ci alal ja fa bàyyi bàkkaar di la fekk fa nga kon amul dara loo xam ni jar na fi xëccoo te jamono ji jikko yi dafay yàqu ba mardi teen ndax njàmbar rek ngay dégg doo dégg mukk cant njàmbar rek ngay dégg ak di xeeb rek ngay dégg ak ak ak ak di xeeb li nga xam ne sunu borom dala koo defal waaye daanaka ay cant doo ko dégg te damay wax toujours ni boo yewoo dara dëllu la am na ñoo xam ne nelawuñ ca guddi ga ña nga fanaan dispensaire te defaloo yàlla loo xam ne ñooñu defaluñ ko seen borom fii du toog di wax am na ñu fi toogoon na nga ni daaw ren jii nekkuñu fi te nun ñu fi desagun defaluñu yàlla loo xam ne moo tax mu bàyyi nu fi di jël ñooñu di leen yóbbu amaana am jël nañ fi koo xam ne moo nu gën nun ñépp te yàlla suñu borom jël ko bàyyi nu fi noonu ñi nga xam ne noo ko yées loolu doy na sëkk ak cant boo yoree ñaari bët di ko xool am na koo xam ne bu jotoon ci piis képp dana sant yàlla boo yoree ñaari tànk am na koo xam ne bu jotoon ci ñaari wóom waxuma ñaari tànk yu dox waaye ñaari wóom yu mat rek bu jotoon yeel ya dikkul sax mu sant yàlla am na koo xam ne fu mu tëdd ca hôpital ba ay raak wala la ñu roof ci biiram ci ci ci biiram roof ci gémmiñam ca lay naan ca lay tuur ndox ca lay dem ca lay dem àll ba kon loolu lépp dara dëllu la ci boo yeewoo war ngaa sant yàlla waaye ak dërëm rek ku ciy wax ak yow bu dee wax ak yow fii ma ngay xool ca Louga yow même taxawal ji wax sax xelam nekkul ci yow xelam moom ca Louga mbaa ca Ndar ku la ci ne ma jox la sama numéro téléphone wala nangam nàngam sax daal di gaaw kare kii nangam foofu nga koy mujj jë dégg ku la ne bu subaa ma ñëw danga am ñetti fan boo gisee mu ne damaa gàllankoor te yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne naqari jamono gii ñuy tudd. naan bekkuwaar ak ay dàngam ay terrorisme ay yii yëpp yooyu du da du dara ñàkk yar gore yi ñàkk guñ leen a ñàkk jàngal ak ñàkk guñ euh, ñàkk aw ci njàngu mag ñi loolu mooy li nga xam ne moo sabab lii mag ñi dañ daan yar nit ñi duñ xabi ñu jàngal leen yar leen bañ ñu nër jàngal leen bañ ni xar ba pare boole kook nag bu ñu daw ne ay muskàllaf dañu jóg di seetante di waxat di seetante lu baax di seetante di jàng di jàngale di bay lépp loo nga xam ne lii tey luy dundal eh, ak ak jaamu yàlla la ñu nekk ca loolu waaye yooyu yëpp boo koy seet la ci ëpp daf fee tuxoo léegi ndax danga daan jóg dem ci kër koo xam ne comme eh, sëñ Xaadim ne wala sëñ Moustapha ma jóge fii ñëw ñu ni ma nekku fi dañ may ubbi lub néegam ma ma daal tëdd daal di joxe sama dépasse ay soxnaam togg nangam indi bu ma neexee toog fi ñaari fan ñetti fan bu sëñ Moustapha ñëw wala sëñ Xaadim ñu ne ko diw sëñ sëñ Baara Laat jaaroon na fi nangam nangam mu daal doon mbégte moo xam day daal di war a fasam daal di si nag fi bu ma ñëwoon néeg sëñ Xaadim fekk ma ko fi wala nangam sax soxnaa may jëkk ne ah moom kat sëñ Xaadim waxutoon dara nangam ñu daal di ubbi saal bi rek ma toog ci comaati bu mu yàgg ma gën dem am na ñoo xam ne sax dañ naan ah boo demee dafa yor lu mu feesool si wala nangam nangam kenn wóoruwul kenn te yooyu yëpp ay ñaaw jot rek mooy li nga xam ne moo ko la loolu lépp fi ne bokk na ci bekkoor beeg ñàkk gii ñuy coow ku reñu def ko jëñ bokk na ci loolu fi mu jikko yu yàqu yi ak ignorance bi ñàkk xam-xam gi ak ñàkk a topp njàngum mag ñi lu may di xool yu bon yii nga xam daa xew leen wax naa ko barki dem démb Touba Mbel ma wax ne gone yii di taxawaan di sàcc di toj bitigi jàmbur yi di def njaagum yi di summi seen tuba yi ba muy lang ci suuf doo doo ci gis mukk ku mën a firi jawaadu nafis doo ci gis mukk ku mën a firi musaalikul jinaan ndax ku ko ca man rek dina am looy rus dina am looy bañ di nga ragal si yàlla di ragal yàlla si borom lu bëri ñàkk jàng rek mooy li nga xam ne mooy li ko sabab te jàng tekkiwul nii dangay ngay jàng tubaab rek tekkiwul ni da ngay jàng arab rek ndax yonente bi kenn ku nekk xam na ne ba mu wax ne xam-xam donte dañ koy wuti ba siin du léegi si nga xam ne boo duggee am dem siin booba da ngay amee at boo bëggee dem siin lu tax nga mën a dem siin te Sëriñ Tuubaa itam foofu la nekkoon ci xam-xam kon euh, boroom xam-xam yi dañuy wax ni wan ma sa ndawi réew mu wan la sa ëllëgu réew yëf yi mu ngi bañee ca base ba base bi mooy ci gone yu ndaw yi lañ ko war a tàmbalee topp ko dem te fii ku fi ñëw fekk fi daara yi ñu fi fekk te ñu am ko feneen ak feneen da xam ne boo boobee ñii ñoom ñu ci loolu moo waral sëñ Sidi Muxtaar di leen sant di ñaanal di leen siyaar li ma li mu waxoon ne naa ko wax fii nag ëpp na lii gën na lii wante nag su su su mu xel neexul moo tax foofu lañ koy foofu lañ mën a yem sëñ Mamoune sëñ Abdou Lahad ñoo koy nuyu bu baax nuyoo bi moom lañu ñu waroon a njëkkee sax ndax mën nañ wax ne kàddu gi tey moom moo ko moom ndax Cheikh Sidi Moutar dafay wax ni fu ngeen fekk koo xam ne seen kilifa na ngeen sës ci man na ngeen jël lépp jox ko lu mu leen te doxal leen ngeen doxal ko kon ñoo ngi bu baax. di nuyu Moustapha Saaw di ko yóbbante nuyoo ci sëñ Abdoulahad mi leen jabal moom ñi mu àndal mu wax ni kaddu kaddu communauté commune bi mooy kaddu sëriñ bi te loolu yàgg na ko wax njëkkewu ko fii tey ndax sama digganteeg moom mate na ko waaye itam fu mu teg sëriñ bi itam mate na ko kon ñoo ngi koy nuyu bu baax euh, sëriñ bi mm, fii la ñu yemale suñu kàddu waaye daal ñoo ngi dénk nit ñi daal doylu ñoo ngi dénk nit ñi maandu ñoo ngi dénk nit ñi ñu wàcce seen bopp te xam ne picc woyof rek moo ko tax dinaaw boo jëloon xeer su ndaw teg ko ci tànku picc dootu naaw te woyof ci la lépp nekk yonente bi sallallahu alayhi wa moo gënoon a woyof ci nit ñi ba tax bu ko yàlla tagg mu tagg ko ci jikko te képp ku la jaay ak boo ko xaaree fi aadama ku mën a doon aadamaa ko meññ képp ku la jaay alal boo ko jaayee doylu rek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 alhamdu wasukru li rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin amma ba'du bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam ci nuyoo lislaam bu jot boobu muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw loolu sëriñ bi ñu ngi jël kàddu gi ci turu sëriñ Ahmadu Mbàkke di suñu kilifa di yor baatu kër sëñ Mouhamadou Xari Mbàkke gépp kon kuy wax ku ne ci aw turam ngay waxe man ñu jël kàddu gi ci turu njabootu sëñ Mouhamadou Xari Mbàkke gépp ci ndigalul kilifa gi di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu bokki taalibe yi ak dëkkandoo yi ak xarit yi ak ñi nga xam ne ñoo wuut ñoo wuy si woote bépp ndax sëriñ Ahmadou ndax sëriñ Ahmadou yow sa woote bi ñëpp wuy si nañ ko lu tax da woote lu baax danga woote loo xamante ni julli yëpp mën nañ cee jëriñ julli yi nag bu ñu leen woo ci lu leen di amal njariñ di dundal seen wuroo la leen war mooy wuy ji yaa ayyuha allazina amanu stajibu lillahi wa li rasuli isa daakum lima yuhyikum kon mbooloo mi yëpp wuy si nañ la ñu ngi leen di sant bu baax ku ñëw ku ne sëriñ bi mi ngi lay dalal jàmm te di la xamal ne ñëw gi nga ñëw dégg na ci moom lool te yëg na ko te sori na ci xolam ndax lii ngeen wuysee wax dëgg yàlla lébalu leen ko yéen a ko lebal kon nag nee na mi ngi leen di sant bu baax bii seen bisa xam ne jàpp ni ngeen ci jàpp ak ni ngeen ko jàppale ndax kilifa kat lépp loo ne mooy doxal mbiram ba tax la muy dox mën sotti rek bu jàpp yëg na ko kon nee na mi ngi leen di sant bu baax yéen jaboot gi nga xam ne yéenay kër gi di sant taalibe yi nga xamante ne nii ñooy taalibe kër gi ndax ñoom yooyu lépp yéen a fi nekkoon lu fi dara nekkut sëriñ bi nee mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ginnaaw loolu ñu ngi gërëm sëriñ bu mag bi muy sëriñ Cheikh Ahmadou Mouhamadou Mokhtar Cheikh Sidi Mokhtar xalifa na mi ngi sant bu baax di ko gërëm di fab cant googu di ko yóbbante sëriñ Cheikh Baara Lahat te ku mu jot ko sëriñ bi xamal ko ne ko. ñun de ay taalibe lañ suñ bokk gépp dañ ko jaay jënde ko ak taalibe lu baax rek moo ñu ñor ak dooni taalibe fa suñu yéenee doon leneen lu dul ay taalibe ndax kii nga xam ne moom la ñuy jëmmal tey di sëñ Mouhamadou Khary Mbacké kenn gënu koo bokk Seexul Xadim te léppam daf koo jaayoon jënde ko ak taalibe bëggoon na itam léppam di ak taalibe te yàlla mayoon na ko loolu kon sëriñ Mouhamadou Khary Mbacké moomu ñu di ko jëmmal te sëriñ Ahmadou mi ne ca bopp ba ñu ngi yóbbante ci sëriñ bi ak cant ak ay ngërëm te di ko xam ne ko fi ñu féete fépp yëg nañ ko gis nañ ko ñu ngi koy ñaanal liggéey maamam bii mu nekk yàlla na ci am ndam loo xam ne kenn mësu ko ci am te loola ku ne am nga ci yaakaar ndax ku ne xam ne ne moom yaa xatalu dara day yaatal rek koo xam ne njaboot ak nga ci tarixa yi sax danga nga ci yaatal waxuma laa li nga xam ne yàlla leen jaboote kon xatalul kenn kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan suñu borom yokk ak wéram te may ko lépp loo xam ne tàmbali na ko ci lislaam tàmbali ko ci yoonu Sëriñ Tuubaa yi lu mu ci man déwén rek ren rek bu déwénee man juróom ñaar téeméeram yaa koy ñaanal ci barki Seexul dem ci borom bis bii ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant itam njaboot gi nga xam ne ñooy bokk yi sëriñ Amadou nee na mi ngi leen di sant bu baax ndaxte lu mu mas a jàpp jàpp ngeen ji lu mu mas a nekk ànd ngeen koog moom ak xaritam yi ak wëllëre ak ñi nga xam ne wuy si nañ ko lépp ci màggal gi ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm. ñi ngi sant sous-préfet Mour Mbacke Fall sëriñ bi nee sant na la bu baax li li la sëñ Cheikh Bara Laat wax léegi rek yow daal daa mel ne mu war nga say wax daa ëpp administration ndax daa mel ne yow mission nga mission bu buñ la yónni ci nit ñi nga yor li ngay waxal diine sax la gën a amal njariñ ci administration kon li nga fi taxawal sa taxawaay rafet na lool ndax lu baax rek ngay digal nit ñi ak lu leen benn le ak lu leen jàppale ak lu dimbali gox bi ku ne xam ne ni ngi ci taxawee ñu ngi ciy sant bu baax di di la ci gërëm ndax wolof dana geenu golo gudd na waaye loo ca laal boroom yëg ko kon ni nga jàppe ci dëkk bi sëriñ bi neen yëg na ko bu baax te loolu dëgg la sax lu la war la ndax loolu moo tax ñu bàyyi la fi waaye nag ca eh, àgg nga ci koo xamante ne ni ci rafetal ak yaatal loola ak cant war na ci koo xam ne dëkk bépp a ngi la ciy sant ndax lu baax rek la ànd leen doon benn ndax liggéey bi ñuy liggéey ci yéen yombuñu loola bu baax rek koy wax ndax mënoon la jee bañ a fekk te yaa ngi kon nag ñu ngi lay ci sant baax amee lañ lay ci kon dëkk bépp ngi lay sant ci turu Serigne Ahmadou ak njaboot gi yëpp ginnaaw loolu ñu ngi sant euh, autorités yi nga xam ne ñoo fi ñëw yëpp commandant brigade bi sapeur pompier ñëpp ñu ngi leen di sant. Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne mooy président mooy conseil départemental moo ko jiite muy lu bees ndax conseil régional moo fi nekkoon kon conseil départemental ak trois bi moo ko fi indi muy lu bees waaye na ñu jénk leen ay responsabilités yu mag ah ki doon wax léegi sa tur Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly wax na ko ah ñu ngi lay sant bu baax ndax kër gi yow sa kër bu dul woon ndomba gi nga takk itam boo fi ñëwee am nga fi cër bu mag. ndax kuy sa bàyyi sëriñ Mbàkke soxna loo nga ñëw fii ci dëkk bii nga xam ne li nga fi tekki kon ñu ngi lay sant bu baax te dina la tàllal loxo itam ci dëkk bi ñu ngi lay ciy tàllal loxo bu baax xam ne am na lu la ci war nag ñu ngi la ciy sant bu baax nag te bëgg nga jàpp ci dëkk bi comme ni nga ko waxee léegi responsabilité yi ñu leen dénk saa yu ngeen demee ba di ci nos da ngeen fàttaliku ne am na gox bu tudd Pofdy te bokk ci département bi da ngeen ci bàyyi xel ñu ngi leen ciy sant bu baax kon sëñ Cheikh Bara Dolly li nga wax yéen ko wax ju rafet la mbokk nga doom nga lépp nga kon boo ñëwee fii ñu jox la nga war a wax ci tur euh, Serigne Fallou loolu dañ naa delloo buum ca boy boy kon ñu ngi lay sant bu baax ci wax ju rafet ji ñu ngi sant Pape Diop maire bu Gaye ñu ngi koy sant bu baax a baax waroon naa jël kàddu waaye ni mu demee moo tax dañoo xam ne daa bokk ci njaboot gi ne waroon nañ ko jox kàddu waaye dafa bokk ci njaboot gi dëgg la miinante yow waaye njaboot kër gi yëpp nga jaxasoon muy sëriñ Moustapha ñoom ñi nekk gorom ak sëriñ nu mii Mewnu Samb mii ñoom ñëpp wax nañ ni nga leen jàppe ak ni nga leen di jàppalee nun na ñooy seen i kilifa suñu njaboot nag fu mu nekk ñu ngi leen di bàyyi xel di leen xool luñ sori sori rek jege nañ kon képp ku leen di jàppale rek foo mën a nekk ak cant war nañu buñ dajee ci suñuy bokk ñoom it ñu ñëw ci seen bokk defi defi lii ñu ngi kon seen cant ñu ngi koy jot ci yow Pape Diop ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm ministre yónni na fi Serigne Djili Lappé mu délégation mu ñëw indi fi ay loo xam participation ci màggal bi te loola safoo bu safoo kër gi Serigne bi moo tax mu def ko Serigne Djili Lappé léegi la fi jógee wax ne xaadima ko yónni jox ko loo xamante ni ni indi na ko mu jëm si ci bis bi lu am njëriñ la suñu xaadim ñu ngi koy sant suñu euh, rakk la suñu doom la suñu lépp la suñu xarit la ñu ngi koy sant bu baax ndax nit ku ko yëg rek mu yëg la te ñun amuñu lu dul sëñ Modou Khoury amuñu lu dul bis bi ku ñu ko jàppal ku mën a doon rek ñu ngi lay sant ñu ngi sant Pape Diop mi bokk gis-gis moom it ñu koy sant bu baax ndax yónnee ne fi ay ndaw ak ay délégation ñu ngi sant itam eh, président Idriss Seck yónnee na fi ay ndaw sànq ñu ñëw fekk ñu fii fi ñu toog Moustapha Ndoye moo ko jiitee fii fa la xëccoowul dara wóotewul dara ànd leen ak man ñu liggéeyal Serigne Touba ci Serigne Modou Khari loolu rek la woote loolu nag lu yomb a dégg la lu yomb mën a wuyu la kon ñu ngi la ci wuyu di ànd ak yow nit sa gannaaw di la car foo nekk ñu nekk faa yow muy metti muy neex muy naqari foo nekk rek nekk nañ faa yow te foo geesoo da ñu gis te nun na ku ñu gis danga xam ne gis nga ay nit nit ñu am xalaat te am am am bëgg te am ay yitte te jaxasoo ñëpp nag mbokk yëpp lañ jaxasoo lu xew dañuy la ñuy ànd bu ñu doonee say say rak doon say taalibe dem sa lépp continuer liggéey sëriñ Tuubaa bii nga nekk liggéey sëriñ Modou Khari bi foo geesoo da nga ñu gis mat nañu dëgër laay mat nañu car mat nañuy rak mat nañuy taalibe ñu ngi sa gannaaw tey ak ëllëg di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu